torne à des moments historiques. moment historique boobu la ñu toll. safar yi seetaan les patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar li gën a fës ci xibaar yi nag ginnaaw li nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ak Adji Sarr toog nañ lu yàgg-yàgg kenn waxul li nga xamante ne moom moo di procès Ousmane Sonko Adji Sarr tey jii nag nekk tey lañ jàpp li nga xamante ne moom moo di procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu war ko amal kat le 16 mai le 16 mai mu nekk loo xam ne timbre na lool lool lool te avant loolu sax li nga xamante ne moom moo di procès Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko boobu noonu daan na ko jàpp le 8 mai bi waxatuñ loolu nag le 16 mais mu nar doona doonaat li nga xam ne moom moo di procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr loolu nar a nekk lu doy waar li nga xamante ni moom moo nar toog si ndodd li nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko muy ñaari procès yoo xamante ne daanaka sax si benn semaine lay doon ana waa nguur gi naka lañ bëgg a waajalee ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko lan la ñuy pare réellement ngir Ousmane Sonko en tout cas daal lu si mënta am rek leen si leen di dikkal ak xibaar yu gën a wóor te leer jaa ngeen jëf abonné leen te partager les Patriotes TV bu remercie